jërë ngeen jëf mbokk yi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yàlla la ñu jugee te ci yàlla lañuy ñuy dellu mbokk yi ñoo ngi jaale Sénégal gépp di jaale monde entier di jaale waa bitim réew sunu ndey ju baax di ñàkk di ajaratu ndey Fatou Kiné Diouf Diatta mbokk yi nag ñu yëgal leen ni suba incha allahu rabbi la ñu koy jébbal boromam di set 30 fii ci armeer bu yoof kon nag ñu bëgg képp koo xam ne. bëgg nga fekkee denc bi di heures pile na la fekk ci Albert Bouyof bu ñu fa jugee li jëm ci sarax si lépp moom mi nga xam ne tey moom lañuy ñuy jébbal boromam duñu ko war ci kàddu duñu ko war ci jëf duñu ko war ci xel lam bëggoon dégg ko ak njabootam moom la koy defaral mooy gannaaw buñ ko jébbalee boromam lépp ñu yemale ko ci bis kon jàpp leen ni troisième jour amul huitième jour amul quarantième jour amul lépp danañu ko yemale suba ci bisub àllarba ji incha allah bu ñu ko dencee 17h30 ba noppi ba 18h ku bëgg a ji demal nga jaala ji kër Papa Thione fi nga xam ni fara mama jaa nga dëkkoon ak njabootam nga joxe sab jaal nga jaale boo noppee nga yeewee ko lépp ci bisub suba lay yem incha allahu rabbi ñu ñaan nag suñu mbokk journaliste yi suñu mbokk influenceurs yi ne ñëpp yem ci anmeer bu yoof bu kenn dem aéroport loolu mooy ndigal li te loolu mooy bëgg-bëgg bi na ñëpp yem ci anmeer bu yoof ak ci si bu kenn dem aéroport ngir yàlla ñu ngi leen koy ñaan jërë ngeen jëf. waa tout d'abord di ko masawu Sénégal yëpp di ko masawu àdduna bi yëpp macha allah ku nekk xam ne Kiné Diouf ku nekk mën nga ko jaale sa moroom yaay joo xam ne la a ko bëgg yaay joo xam ne macha allah liggéeyal na Sénégal mais di ko jaale di jaale ay njabootam te di leen masawu di leen wax ne yàlla bu bëggee rek jaam day ñàkk. di leen wax ne aussi nañ góor góorlu jël yàlla def ko wéeruwaay ku jël suñu borom def ko wéeruwaay rek macha allah affaire bi dina apaisé wu. metti na lool suñu doom jooju Waly Seck suñu frère yal na ko yàlla may xol muñ may ko ay rakkam may ko ay mbokkam may ko mboolem jullit ndax ki ne moom ñëpp ñun suñu xel dal na ci moom. suñu xel dam dal na ci moom macha allah ndax référence la woon jigéen ju baax. jigéen ju am fulla jigéen ju am fayda jigéen ju am personnalité man duma wax lu ma gëmul duma seedeel lu ma tegul sama bët ndax dama ragal yàlla xaw ma kañ lay doon tôt ou dama koy fekk si dama koy fekk ji kon lépp lu may wax rek day doon loo xam ne maa ko gis ki ne dama tasanteeg moom ndeysaan hôpital Fann dafa amoon malade ma tasanteeg moom ñaari yoon benn bi dama tasanteeg moom mu yor lekk ànd ak ay nit di ko séddale ñi fa nekk beneen bi macha allah dama tasanteek moom ci morgue bi billahi wallahi tallahi ñuy waajal koo xam ne mort inconnu la man maa gis loolu man soxna Abibatou Gaye ku nekk xamewuma ci caaxaan bi ma demee sama kër dama toog jooy maa ngi koy waxante ak sama benn frère man nettali ko ko ma ne maman Kiné Diouf Diaga tey laa gën a bëgg tey laa ko gën a sopp ndax li ñu doon wax ci moom bi yëpp man maa ko gis xam nga ñu nettali la ak yow loo gisal sa bokk bokkul man maa gisal sama bopp li may wax macha allah mu nekk acte yoo xam ne tamit acte yu ma naw la maa ngi leen di wax aussi dama demoon cimetière Yoff ndeysaan san ziar mooy bu ñuy balewaat armeer ya war na yonent bi man maay dox ba liir coon sekk ki ma àndaloon ma ne ah lii de raw da coon sekk la ma defaat nii ñu gis ñu bindaat raw da faatu jaaga bind date ma taxaw ne allahu akbar jigéen ju baax jigéen ju ragal yàlla jigéen ju màndu moo ngi nekk nii moo tax bés bi lu mu waajaloon la lu mu xamoon la te lu mu jefe woon la moo tax ma ne man sama xel dal na ci moom yàlla ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal yal na gisanteeg soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kuy waxal yàlla xam ne Kiné Diouf ku bëggoon yonent bi la. sallallahu alayhi wa sallam ba ku ko bëggoon am sax jaar ko ci yonent bi man damay seetaan ay vidéo yu bari bari yonent bee moo taxoon ma bëgg ko xaw ma à Euh, li ma ko gis fréquenté wuñu xamuma doomam xamuma kenn mais ku ko bëgg laa ku ko sopp laa gaañoom bi ku daf ma affecté sama biir xol waaye ñun ñëpp ci yàlla la ñu jugee ci yàlla la ñuy dellu di ñaanal famille bi rek xolu muñ te yàlla na fa dégg ci barke Nabi Moustapha leen jàll yéen tamit parce que ni ko waxee ñëpp ñoo ko bokk euh, muy lu metti metti metti metti euh, coro bi ma koy tàggee daf ni ma ah papa nga baal ma de li ma lay wax métti na lool xam naa fi mu egg ci yow mais mënuma la ko bañ a wax. Mhm. parce que ñoom xam xamoon xamoon nañu euh, relation yi nga xam moom laa am ak la famille de Thione Seck. Mhm. particulièrement Thione ak soxnaam si nga moo fi bàyyi ko tey. Mhm. d'ailleurs Thione daaw ma wooyu mukk Serigne Mbacke daf man woo rek xaritu jaaga. su ma nee xaritu jaaga man ko bàyyi waali ñu ree euh, muy lu metti lu metti parce que. coon bu ñu fi jógee yàggul ñu di ko jooy noppeeguñu euh, doomam jiitu doomam jooju aussi mu nekkoon ko nga xam ni ñi ko xam yëpp xam nañ ne doom la woon ci man tey yàlla def li ko neex euh, jaaga dem fekki leen euh, muy lu tiis foo ko natt weesu na ko parce que bu dul woon lu ñu di ay jullit gëm yàlla dañuy wax ne dañ leen a singali mm. waaw doo singal mais yàlla bu ko neexoon ñun ñëpp ñu àndandoo mu yóbbu ñu ci benn jour euh, mi ngi may fàttali rek bi fi suñu wayjur sëriñ Mansour si borom daara ji jóge fekk avant loolu soxnaan su tedd soxna maam xaar jóge fi euh, ñu teg ci ab diir seen doom ju jigéen jóge fi yàlla mooy defe noonu c'est difficile pour me trouver les mots pour wax dëgg-dëgg li nga xam ne moom laay sentir mais dama wax sànq ci benn poste ni jaaga moom mission accomplie te loolu ku ko wax kenn du la weddi ndax borom këram moo ko gërëm ba woy ko te du benn woy xëy na bi mujj nii daf ci gën a siiw mais jëkkul ci boobu ñaareel ba ñun suñu culture suñu cosaan ak suñu aada dañuy wax liggéeyu ndey añub doom kon mën nañu jàpp ni li mu liggéey ci kër coon feeñ na ci doom yi nga xam lu ñoom la jur parce que macha allah yàlla mi ngi leen di suturaal ñeewuñu kenn yàlla na suutur yàgg mhm. waaw euh, comme ni nga ko waxee rek euh, sa xarit la woon moom ki nga xamante ni moo di Papa Thione tey yombul euh, cër li ko yàlla may sa boroom kër siiw sa doom siiw waaye yombul ñuy dégg Mama Diaga ci yenn yi ban façon nit la woon non mooy li ma mooy li ma doon commencé wax léegi dina mission accomplie mhm. parce que sëy ba sa borom kër sant la mhm. nga yar say doom ba ñëpp xam ne yaru nañu te kenn mësul a fekk fenn foo nga xam ne dañu naan kii lu mu fi def loolu du sax ngóor a peut-être mais lu yàlla jagleel doomu aadama la ak jamono ji ni mu mel ak dem lay fekkal léegi lu mu mel ni mu mel mais jàgg ko ko waxal dara rek a ah, sa waxu bopp la mais dooni fekk naa ko ci nangam dooni gis naa ko ci nangam demul dikkul et li may wax nii mën naa ko wax teg ci kaam parce que jëkkëram moo ko wax ay doomam seddal ko seen yaay lenn rek mooy yitteem ñuy dem ci armeer yi ba toppatoo ñu feebar loolu rek moo nekkoon yitteem ci li ñu koy dégg. mais loolu yëpp boo ko boolee xëy na moo ko jox li nga xam ne tey euh, moom la am. parce que kenn ku nekk la ngay dund yaa ko xam mais sutura yàlla dafa yaatu. Mm. te bu fekkee ni yàlla jox na la sutura jox la sac nga ni ma ko waxee léegi rek nga uuf sa jëkkër ba jébbal ko borom bi. Mm-hmm. Euh, yar sa ay sa njaboot. ba ba ba kenn amul lu mu leen waxal. Euh, je pense que foofu la foofu foofu la nit mun a yem te macha allah fi nit mun a yem egg na fa. Mhm. li ci des rek mooy yàlla na ko yàlla xare àjjana euh, uuf njaboot gi mu fi bàyyi. xëy na nit bu demee dinañu jaaxle ci njaboot mais yàlla moo yor ñëpp. Mhm. nga nekk fi yàlla moo leen yor nga bañ fi nekk yàlla moo leen yor donc yàlla na ko yàlla xare àjjana. Mhm. Euh, coon fa mu tëdd yàlla na ko yàlla xare àjjana moom it. Euh, njaboot gi fi des it yàlla tegal teg ci boppam loxoom. Euh, loolu yëpp rek day dellu si ci responsabilité boo nga xam ne nag doomam di sa Seck gën na ko am parce que boo nekkee ak ndey ak baay ak say rak euh, yàlla jël sa baay jël sa ndey tey euh, sa responsabilité dafay gën a yokk donc yàlla na ko yàlla kattanal dooleel ko ba responsabilité boobu mu gën ko mën a assumer li ci des rek mooy képp ku doon xaritu coon wala ngay mbokkam Euh, rek yàlla na nga am conscience boobu ba gën a jege xale yi gën leen a jàppale gën leen a wéttali parce qu'ils en ont besoin. yan kàddu ngay dégg Sénégalais ci saa su ne rek waxante lu ñaaw xaawente sutura. beneen yoon ñu dellu si ci loolu pour le moment je pense que mun naa yem rek ci waaw. jërëjëf ñu ngi lay masaw bu baax bu baax merci.